juróom ñaar fukk dugg na ci yerusalem asalaamaaleykum mbokk yi ñuy déglu nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla boroom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw. bég nañu lool ci li nu mën a dellu si tey ngir dégte leen seen émission bii di yoonu njub ci njàng mi weesu gisoon nañu ni yéesu dekkale néew bu amoon ñeenti fan ca bàmmeel ba dooley dee tewul borom bi yeesu ndaxte moom ci boppam mooy ndekkite li ak dund gi tey ji nag danu fas yéene jëm kanam ci linjil bu sel bi ba gis ni yeesu dugge yerusalem fa ñu ko naroon a reye li doy waar ci loolu mooy yéesu xamoon na lépp li ko waroon a dal ak ni ko njiiti diina yawut ya ak waaroom Room naroon a fitnaale ba daaj ko ci bant waaye loolu terewul mu jëm yerusalem ci loolu linjil bi nee na bi jamono ji jege see ji yeesu waree jóge àddina dem asamaan mu sigiñu ci dem yerusalem te bi muy dox jëm yerusalem yeesu wax na ay taalibeem faaw ñu sóob ma ci metit te ba looluy mat duma noppalu lu taxoon yeesu sigiñu ci dem yerusalem ngir jébbal boppam ci loxo ñi ko bëgg a rey lu doy waara ngi soo xamee ne am na cib dëkk ñu la bëgg a fitnaal te la ndax dinga sigiñu ci dem dëkk boobu mukk waaye moom la yéesu almasi bi defoon ndaxte xamoon na ne dee ni sarax suy dindi bàkkaar a taxoon mu juddu yéesu ñëwul ci àddina ngir wut bànneexu boppam waaye ngir amal li yonent yàlla yi bindoon bu yàgg ci mbiram maanaam faawu almasi bi sonn tuur deretam ca gannaaw yerusalem ca tundu wa yonent yàlla ibrahima rendo woon xar ma wuutu woon doomam faaw li xaru tabaski doon misaal am ci yéesu looloo taxoon yéesu jëm yerusalem di dëkk boo xam ne dafa meloon ci moom ni kàmbu gaynde yu xiif yu koy xaar kon nag mën nanu wey léegi ci sunu gëstu ci téereb linjiil mu ne gannaaw loolu ñu ànd jëm yerusalem yeesu jiitu taalibe yi am njàqare te ñi ci topp tiit noonu yeesu woowaat fukk ak ñaar ña ci wet xamal leen li nar a xew ci mbiram mu ne leen noo ngi dem yerusalem te li yonent yi bindoon lépp ci mbirum doomu nit ki dina mat des na jébbal doomu nit ki ci loxoy sëriñ su mag sa ak xutbakat ya dinañu ko àtte teg ko dee jébbal ko ñi dul yawut ñu ñaawal ko di tëfli ci kawam dóor ko ay yar rey ko waaye gannaaw ñetti fan dina dekki waaye taalibe yi dégguñu li mu leen doon wax kàddu yooyu ump na leen te xamuñu li waxi yeesu yooyu di tekki bi yeesu agsee dëkku yeriko am gumba gu toogoon ca wetu yoon wa di yelwaan naka la gumba ga dégg mbooloo ma di jàll mu laaj lan moo xew ñu wax ko ne yéesum nasaret moo fi jaar noonu mu yooxu ne yéesu sëtu daawuda yërëm ma ñi jiitu woon gëdd ko ngir mu noppi waaye muy gën a yuuxu naan sëtu daawuda yërëm ma noonu yéesu taxaw santaane ñu indil ko ko bi mu jegesee yéesu laaj kone loo bëggoon ma defal la ko mu ne ko sang bi dama bëgg a gis noonu yéesu ne ko na say bët gis sa ngëm faj na la ca saasa mu daldi gis noonu mu topp ci yéesu di màggal yàlla mbooloo ma mépp gis loolu di sant yàlla gannaaw loolu yéesu ak taalibe ya jege woon nañu yerusalem ba agsi ci dëkku betfage ci wetu tundu oliw ya noonu yéesu yebal ñaari taalibe ne leen dem ci dëkk bi ci seen kanam bu ngeen egge dingeen gis mbaam mu nu yeew ak cumburam yeewi leen leen indil ma leen bu leen kenn waxee dara ngeen ne ko boroom bi daleena soxla kon ca saasa dina leen bàyyi ñu dem yeesu def na noonu ngir lañu bindoon jaare ko cib yonent am bi mu naan waxal waa siyon seen buur a ngi ñëw ci yéen ku lewat la te war mbaam sëf dig cumbur doomu mbaam noonu taalibe ya dem def loolu leen yéesu sant ñu indi mbaam ma moom ak cumburu ga lal ci seeni yére yéesu toog ca ña ëpp ca mbooloo ma lal seeni yére ca yoon wa ñenn ña dagg ay ceri garab lal leen it ca yoon wa mbooloom ña ko jiitu ak ña ko topp ñépp di wax ca kaw naan osaana yow sëtu daawuda bi yow mi ñëw ci toru borom bi ku barkel nga ca béréb yu kawe ya nañu ne osaana waaye ay farisiyen yu nekkoon ca mbooloo ma ne yeesu kilifa gi yeddal say taalibe noonu mu tontu ne maa ngi leen koy wax bu ñu noppee ñoom doj yi xaaju bi yeesu jege dëkk ba seen ko mu jooy ko naan cey yow itam boo xamoon bésub tey yii la mën a indil jàmm waaye ràññewuloo jamono ji yàlla ñëwe wallosi la bi nga xamee ne yéesu dugg na yerusalem dëkk ba bépp yëngatu ne kii moo di kan mbooloo ma tontu leen ne kii moo di yonentu yàlla yéesu bi jóge nasaret ca galile bi loolu amee yeesu dugg ca kër yàlla ga dàq ñépp ña fay jaay ak ña fay jënd mu daaneel taabali weccikatu xaalis ya ak toogu jaaykati petax ya naan mbind mi nee sama kër dinañu ko woowe këru ñaan ci yàlla waaye yéen def ngeen ko këru sàcc noonu ay gumba ak ay lafañ ñëw ci moom ca kër yàlla ga mu faj leen bi nga xamee ne sëriñ su mag sa ak xutbakat ya gis euh, nañu yëf yu doy ya mu def te dégg xale yu ndaw ya nekk ci kër yàlla ga di wax ca kaw naan osaana yow sëtu daawuda bi ñu daldi mer ndaxte osaana mu ngi tekki yàlla musal nu te mujj a nekk baatu màggal yàlla noonu sëriñ sa ne yeesu ndax dégg nga li ñuy wax yéesu tontu leen ne waaw dégg naa ko ndax mësuleen a jàngal lii ci mbind mi ci gémmiñu perantal ak ñiy nàmp sàkkal nga sa bopp ay cant bi ko sëriñ su mag sa ak xutbakat ya déggee nag ñu ragal ko ndaxte mbooloo mépp dañoo waaru ci njàngaleem noonu ñu seet pexem ko noonu yeesu wax ak ay taalibeem naan waxtu wi ñu wara feeñale ndamu doomu nit ki jot na ci dëgg dëgg maa ngi leen koy wax fii ak pepp dugub ji wadd ci suuf jaarul ci dee du mën a weesu li mu doon pepp dong waaye bu deewee dina jur pepp yu bare léegi nag dama jàq lu may wara wax mbaa duma naan baay musal ma ci li nar a xew waxtu wi ñëw déedéet ñëw naa sax ngir jaar ci waxtu woowu baay màggalal sa tur noonu ñu dégg baat bu jóge asamaan naan màggal naa ko ba noppi te dinaa ko màggalaat mbooloo ma fa teewoon te dégg baat boobu daldi ne dënnula woon ñeneen naan malaakaa doon wax ak moom waaye yéesu ne taxuma baat boobu jolli waaye yéen a tax ateb àddina si jot na léegi ñu dàq malaaka mu bon mi jiite àddina si te man bu ñu ma yëkkatee ma tiim suuf dinaa wootal nit ñépp ci man ci baat yooyu la doon misaale ni mu waroon a faatoo nanu taxaw fi tuuti gis nanu ni yeesu ware cumbur dugg yerusalem ak ni ko mbooloom yawut ya sante di ko tàccu bëgg ko fal seen buur waaye mbooloo ma xamul woon lu tax yéesu dugg yerusalem taalibe yéesu yi sax ràññeewuñu li naroon a xew dañu yaakaaroon ne yeesu dina musal xeetu yawut yi ci seen nootaangeek noon maanaam ci nguuruk rom waaye loolu taxul woon almasi bi yeesu ñëw ci àddina si ñëwul ngir tas nguuru rom waaye ngir tas nguuru seytaane wàccul ngir soppi àddina su yàqu si waaye ngir soppi xolu nit ñi ci dëgg-dëgg benn bés yéesu kirist dina dellusi ngir àtte waa àddina si te defaraat dunyaa bépp waaye bi mu jëkkee ñëw ci àddina dafa ñëwoon ngir dee ni sarax ngir musal doomi aadama yi ci seen peyug bàkkaar nanu wey léegi ci nettali bi mbind mi nee bés bu nekk yéesu di jàngale ca kër yàlla ga sëriñ su mag sa ak xutbakat ya ñoom ak njiiti xeet wa ñu ngi ko doon wuta reylu waaye xamuñu woon lan lañu mën a def ndaxte nit ñépp a ngi ko doon déglu bañ benn baat raw leen benn bés yeesu doon jàngal nit ña ca kër yàlla ga di leen yëgal xibaar bu baax bi sëriñ su mag sa ak xutbakat ya ak njiit ya ñëw ne ko wax nu ci ban sañ-sañ ngay defe yëf yii walla kan moo la may sañ-sañ boobu yeesu tontu leen ne man itam dinaa leen laaj lenn wax leen ma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 kon man itam duma leen wax ci ban sañ-sañ laay defe yëf yii noonu yéesu daldi wax nit ña léeb wi amoon na nit ku jëmbat toolu reseñ batale ko ay baykat dem tukki tukki bu yàgg bi tool bi ñoree nag mu yónni surga yi ci ñoom ngir jot wàllam ci meññeef gi waaye baykat yi dóor ko ay yar dàq ko mu dellu ak loxoy neen mu yónniwaat beneen surga ñu dóor ko moom itam toroxol ko dàq ko mu dellu ak ay loxo loxoy neen mu yónneeti ñetteelu surga ñu gaañ ko dàq ko boroom tool ba daldi ne nan laay def nag dinaa yónni sama doom sama reeni xol xëy na ñu wek ko moom waaye bi baykat yi gisee doom ji ñu ne ci seen biir kii moo wara doon tool bi nanu ko rey moom ndonali ñu génne ko tool bi nag rey ko noonu yéesu laaj leen nu leen boroom tool bi nar a def nag xanaa ñëw rey baykat yooyu dénk tool ba ñeneen bi yéesu waxee loolu nit ña ne ko yàlla tere waaye yéesu ne leen jàkk daldi ne kon nag lu baat yi ci mbind mi di tekki doj wa tabaxkat ya sànni mujj na di doju koñ képp ku dal ci kaw doj woowu dammatoo te ku mu dal ci sa kaw rajaxe la xutbakat ya ak sëriñ su mag sa ñu ngi doon wutar jàpp yeesu ci taxawaay ba ndaxte xam nañu ne ñoo tax mu wax lépp woowu waaye ragal nañu mbooloo ma noonu la yéesu tontoo woon ñi ko doon wutaray jaarale ko ci léebu baykat yu soxor yi ndax xam ngeen li léeb woowu di tekki jafewula firi ci léeb wi borom bi yéesoo ngi ciy méngale yàlla ak boroom tool bi toolu reseñ yi mooy xeetu israel baykat yu soxor yi dañuy misaal kilifa yawut ya surga yi boroom tool bi yónni ci baykat yi maanaam surga yi baykat yi xeeboon te sonal leen ñoo yonent yi te doomu boroom tool bi dikki baykat yi reyoon mooy misaal almasi bi yeesu noonu gis nanu ni sëriñ sa ak xutbakat ya mere lool ndaxte xamoon nañu xel ne ñoom la yeesu doon wax xamoon nañu ne ñoom la yeesu doon méngale ak baykat yu soxor yi fitnaal surgay boroom tool ba te mujj rey doom ja sax naka noonu yéesu tegoon na leen ñu sàggane waxu yonent yi ak ñi naroon a mujj boom almasi bi di doomu yàlla aji kawe ji te yeesu yemul woon rekk ci wax leen léeb bi waaye tariloon na leen it li ñu bind ci saboor ci mbiram naan doj wa tabaxkat ya sànni mujj na di doju koñ képp ku dal ci doj woowu dammatoo te ku mu dal ci sa kaw rajaxe la noonu la yeesu doon arto kilifay diine yi te di leen xamal ne képp ku bañ a nangu musalkat bi yàlla fal musalkat boobu dina mujj a nekk sa àttekat ah bale nu àq mbokk yi waaye sunu jot jeex na jërë ngeen jëf ci déglu bi bu soobee yàlla ci émission bi ñëw dinañu wéy ci nettali bu doy waar bi ci mbirum yéesu ak kilifay diine yi su fekkee ne am na lu ngeen bëgg a laaj ci li jàng tey nangeen ngeen nu bind ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel da ngeen xalaat bu baax ci li mbind mi wax ci mbirum almasi bi bi mu naan ci àddina la nekkoon àddina si ñu sàkk la ko ci moom te àddina xamu ko